bi ci jëkk mooy esprit de sacrifice ñu koy wax ruuxu tatiya maanaam yoore sa bopp bu société bi soxlaa wala mu nekk ci jafe-jafe jullit dafa war a fàtte boppam ngir wóolu société bi yonente bi li muy bëgg-bëgg màkk bi jullit ñi nekkee ci danger dafa war ginnaaw màkk ngir aar leen ci dundam ak ginnaawam yonente bi li mu sacrifié ci njabootam diggante Badar Uhud Siffin Karbala ngir diine taxaw kenn xamul lu ñu bi diine tolloo ci diggante bu mel noonu fii ci réew mi sacrifice bu ni mel la maam Amari Ndaak li tax nit di kër mu di njaboot ak alal ak sax daraja lépp yàlla jagleel ko ko ba leetar ba tàbbee jóge ca seexu mu won lépp ginnaaw soo jàngatee kàddu yamu tàggoon njaboot bi ba mu wuy di sacrifice yooyu la ñu indi ba mu naan balaa jant so dinaa sori lool ca na ba te it xamuma kañ laa fi dellusi xam sax ndax dinaa fi dellusi loolu mooy sacrifié na dëkk ak i tool maanaam alal mu teg ca ni yéen donga yi diisoo leen ak waajur seet yeneen daara yàlla def na réew mi yaana kon kay sacrifié na daara mi daan joxe dara jafe jooja jamono mu teg ca ni jigéen ñi maa ngi leen di ñaanal ngeen dellu kër ya ànd ak jaboot gi makan yóbbul moor sekk kër sëriñ tawa taala góorgóorlu naa la yàlla kon kay sacrifier la njaboot sacrifier lépp ngir lan ngir cheikhu sama sëriñ yónnee na wooma damaa war a gàddaay taxawu ji diine esprit de sacrifice boobu la def ci njabootam ba ñu waxtu dono bi sàmm ko ba mu yegsi ci ñun tey duñu ko faral di bàyyi waaye li muy làqu maam amari naag ñetti ndaw la fi bàyyi booba maam Momar Talla fanweeri at la am maam Ibra Penda ñaar fukk maam ma liggéey fukk ak juróom-ñett kon tey ñetti ndaw ñoo yoole seen jeunesse ba ñun ñu mën a tey jot ci diine ji yegg foofu ci nag jafe na waaye sëriñ baa ngi dénk jullit ñi rawatina taalibe yi li ñu may tey li ñu am ginnaaw yàlla mooy kilifa bu ji léppam ba ci bakkanam yoole diine sëriñ bi ni kon nag fu waay ne te société ba muy dund sëriñ bi nee na na bàyyi xel xaj boppam jox penc mi ak wàllu penc mi su jafe-jafe amee ñaareelu jikko bi moo di muñ di jikko joo xam ni dafa bokk ci fondement li ko yàlla tudd ci alxuraan bari na lool yonente bi sallallahu alayhi wa li mu jànkoonteel ci jafe-jafe keneen ku ko yàlla tegoon nga saali ay bokkam di ko xas mu muñ ñu koy agressé mu ñu embargo ko mu muñ ñu faat ak ñoñintal jullit ñi mu ñu génne ko màkka mu muñ ñu tere ko aj màkka mu muñ loolu lépp nag terewul keroog fàttu màkka ba mu jekkoo mënoon a mu mel ni mësee su koo ndax la mu gëm te di ko dund mooy ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عظم الأمور maa amrillah muñ bokk na ci li ko may li mu bàyyee muñ na mboolem tumu rankay gàddaay waaye muñ na itam mboolem tumu rankay jihaad diiru juróomi at ñi ëpp ci jihaad yi dañu daan baagante ñii bu nooree ñu xeex bu nawetee ñu bàyyi ñii bu deegi baree ñu daw ñii bu ñu gaañoo ñibbi maam Amady Ndaak ba mu tàbbee ca jihaad ja génnatu ko sax la gaañ-gaañ ba di mitti mitti taxul mu sori jihaad ji waaye teewul bi diine taxawee ba mu sanc canaba dafa jéggale na ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon bari na ceddo yu àndoon ak tubaab yi noonu ko moom maam Amady Ndaak te ginnaaw bi ñu fekk si ko fii ci canaba tuub di ay taalube mu defar leen ba kenn xàmmewu leen ak ñi ci des qualité yooyu bokk na ci li waral bi liggéey ba àggee seexu jël mbuut ma jébbal ko ku ne teg na bëtam tey jii ci li ko yàlla ba tax na sëriñ bi di dénk muñ mbooleen jullit ñi rawatina taalibe yi ñu saxoo muñ tàmbalee ko ci kër yi ci pénc mi ci liggéeyukaay yi ak muñul muñal kilifa yi sëriñ bi nee na xëy lépp sotti yàlla dong moo ko man te defalu ko ngeen ji mbindeef waru koo yaakaar ku ko séntu ci sa chef de village wala sa maire du tax mu sotti préfet mënu ko gouverneur ak ministre mënuñu ko rawatina njiitu état bu néew doole te lépp di priorité ci réew mi ñëpp soxlaandoo ko bu ñu muñul yamale bëgg-bëgg yi dañuy sonn sonal suñuy kilifa te du tax lépp xëy sotti sëriñ baa ngi dénkaani muñ ak bañ a yàkkamti ñetteelu jikko bi moo di maandu Mohamed Alkuun ci téere bu mu bind tudde ko al islaamu bayna al mumaarasati al xawliyati wal adli wax na ni boo sukkandikoo ci baat yi dellu ci atte ak maandu mel ni xaq zulm xukm xist adl li aju ci atte moo di bi gën a yaatu ci alquran ak sunna docteur Raghib Al Sarghani moom dafa sax wax ni ak atte ñoo tax yàlla wàcce ay yonent ak ay téere fa mu ko def mooy laxad arsalnaa rusulanaa bil bayyinaati wa anzalnaa maahumul kitaaba wal miizaana li yaquuma annaasu bil qisti boo delloo ci bataaxal bu siiw ba Umar bun Xattaab bindoon Abu Musa al-Ashari gouverneur bu li ëpp te ndénkaane dafa dellu ci atte ak maanu bokk na ca la mu ko doon dénk mu ni ko booy atte na nga maandu ba ci ni ngay tooge ak ni ngay xoole ndax ki am doole waru cee gis lu muy yaakaare ci yow ak jeng waaye ki néew doole waru cee gis moomit lu muy ñàkke yaakaar ci njub maandu ci atte ba ci saw toogiin ak ci sax xool maam amari daal jëfe na ko taarix denc ko di ko nettali li gën a siiw ci li ko téye jaayaan mooy sëriñ jaayaan da koo wax ni gan gu jóge ci yàlla jëm ci yàlla du ma ko bàyyi mu dem dëgg waaye boo xóotalee xissa bi dangay ngay gis ni bokk na ca sababu toogaay ba atte ba mu xëy dénk ko ak na ko góor gi attee booba sëriñ jaayaan dafa jaayoon aw fas waaja yor ko ab diir delloosi ko di xaj sëriñ jaayaan mooy xaali waaye moom la ñu tuumaal mënatu la sol keroog mbubbum xaali mu yëkkati atte ba jox gan gi jóge ci yàlla jëm ci yàlla ci tënk maam amari laaj laaj waa luy sababu mu bëgg a xaj mu tontu ni fas wi dafa nanguwul a lekk mu laaj sëriñ jaayaan lu mu daan dundale fas wi mu ni ko dugub atte ba daanu maam amari laaj ni sëriñ jaayaan yaa tooñ ndax dangaa waroon a bàyyi xel ni baadoo la mënu njaatigirtoo kii day jéngul mukk jëm ci borom doole tasul itam yaakaari néew ji doole loolu moo di maanu sëriñ bi di dénkaane kon maanu ci ñëpp rawatina ñi yor responsabilité atte ak arbitrage ndax atte tënkuwul rek ci procès ak tribunal gën naa yaatu loolu alxasar yi ñu tuddoon sànq dafa wax ni daawa bi gën gaaw ci convaincre doomu aadama moo di dund li ngay jàngale ñi ngay jàngal teg ci seen bët boo xoolee trajectoire maam Amady Ndaak Kajoor ba Canaba jaar ci jihaad bi loolu rek ngay gis waaye la mu ca doole ba mu saccee Canaba moo di dafa théoriser tarbiyaam tënk ko ci symbole boo xam ni richaay ba jéggi na dayo ba tem boo indi rek mu man koo jëmmal devise di ramsu maam Amady Ndaak wa àll ba allahu akbar soo ko jàngatee da ngay gis ni lu bari dafa dellu ci yar bi ci ay valeur morale maanaam jikko yu sell moo tax Ramzy ci boppam dafa bari ay signification ak ay niveau bi ci jëkk moo di éducation à l'éthique négative maanaam yar doomu aadama ba mu sori boppam safaan yi delloo nit ginnaaw ba tax ne képp ku dégg Ramzy bi ci niveau boobu te sàmmonte ak moom da ngay sori sa bopp valeur négative maanaam ñaawteef yi gaar doomu aadama surtout boo yoree responsabilité di gouverner bokk na ca bew bëgg alal bay moomale sa bopp li ñëpp bokk not doomu aadama tuur deret ak ñeneen ndiiba bii kon ku ci tënku di nga rawale sa bopp ndax li yàlla tere lépp da ngay weesu ragal ko da nga koy jombale sa bopp ñaareelu niveau bi moo di éducation à l'éthique positive te mooy fexe ba taalibe dootul yam rek ci sori boppam tere yi da cay boole tàggat ruuxam ngir delloo ko ci fitra bi nekkoon cosaanam te société bi ak matière soppi ko ci bii niveau àll wa li muy firi moo di xóotal xam-xam àll ba moo di sell liggéey allahu akbar ginnaaw ibaadaat moo di ragal sa borom ci lépp looy def ci ñetteelu niveau bi ramz bi day tàggat taaluga bi jëmale ko ci maarifa foofa devise bi meneen piri la yor àll ba dootul rek liggéey ndax foofa liggéey day dellu ci ni mag ñi daan firee tool tool bu suuf wala àll bu ñuy bay waaye jumtukaay bu góor yàlla di natte boppam fu mu toll ci yàlla ci boobu martaba àll wa dootul yam ci bind ak maas day fekki allahu akbar ñu dootul yam ci ibaadaat ñu ànd bokk jubluwaay te moo di xippil taalube mu xam lu nekkul ci téere ki àgg foofu nag mooy ràññee ni tarbiya bi mu ñu fàggul maam Amary Ndaar da koo mu doon système ñu man ke am approche systémique maanaam itiage mu nasax système mooy mbir yu lëkkaloo lenn du dem te yóbbaalewul la ca des moo tax du tànn àll ba bàyyi àll ba du tànn àll ba bàyyi allahu akbar ki yegg ci niveau boobu nag mooy dëgg-dëgg ki yelloo gouverner bi mu lëkkalee ñetti bànqaasi ramz bi ci la ràññee ñett li nga xam ne ku ko réeree doo mën a gouverner ku ko xam yaay mën a gouverner bi ci jëkk sooy gouverner da ngaa war a xam ni yàlla la soob nga yilif say nawle te rawoo leen soo ko xamee te jëfe ko loolu mooy dox sa diggante ak bew mala rams bi tere booy gouverner ñaareel ba na sa itte weesu say mbagg soo xamee loolu te jëfe ko mooy dox sa diggante ak aaki ñépp bokk rams bi tere woon ko ba tey booy gouverner na nga xam ni doomu aadama du moom tundum dafa am profondeur historique am épaisseur sociale maanaam doomu aadama dafa am fu mu jóge am lu ko soo xamee loolu bàyyi ko xel mooy dox sa diggante ak not doomu aadama wala doyadal ko wala torop xal ko te yooyu yëpp ràmb si tere woon la ko gouverner nag dafa yaatu te wuute jiite mi ngi tàmbalee ci famille ci njaboot jaar ci quartier am dëkk liggéeyukaay am gox ba ci am réew képp ku kilifteef gàll ci saw loos sëriñ baa ngi lay dénk nga sàmmonte ak tarbiya maam Amary sa jikko ba xam luy njiit ak nu ñuy jiitee jikko yu sell yorin wu rafet ñooy lay taay jàmm ci ab société ci am réew tëdd nelaw te doo ut sa bunt wóolu jikko yu société moo tax nit sañ koo def yaatu woon la booba nit ñi dañoo doylu woon te ragalu seen borom léegi nag nit ñi dañoo bëgg alal te réere seen borom moo tax sëriñ bi di fàttali ñaari mbir pour ñu bàyyi ci xel bu baax mu ni état na gën a jël ay matuwaay ngir yokk kaaraange gi waaye yarkat yi surtout moo xam wayjur moo xam sëriñ daara moo xam maître école moo xam état nañu taxaw temm ci defar bi jikkoy njaboot bi loolu moo mën a gàttandu violence yi di raam di dugg ci réew mi Serigne Bara wax ko junj léegi te fépp fi baax Serigne baa ngi massaw ñi mu jot a dal ci seen kaw tey ñaan yàlla yamale ko fi waaye ñu ngi ci bés bu tedd bii di fàttali ak ñaanal julli di fitna di menacer seen diine ak kaaraange di ko tàmbalee ci Casamance di ñaan yàlla wàcce fa ju sax ak naataange Serigne baa ngi fàttali ko sunu mbokki Mali. di ñaan yàlla mu delloo jàmm kii daal ak bët gannaawu réew ma sëriñ baa ngi fàttaliku waali bi di ñaan mu fasantewaat gox ya ba réew ma dellu di benn bopp na mu meloon ci jamonoy Muhammad al Xadaafi mi ngi fàttaliku waa Irak di ñaan yàlla delloo jàmm Bagdad Mosul ak Raqqa mi ngi fàttaliku waa Syrie tey ñaan yàlla delloo jàmm Damas ak Alep mi ngi ñaan yàlla mu sàmm ak jàmmal Palestine ba ñu dellu ca seeni territoire yilif Jérusalem ak masjidul Aqsa wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu duunil ci yonent bi lañ mottilee taaru yonent yi ko jiitu yëpp muy 124 mille yonent satu euh, bi nee na nañ ko topp ginnaaw loolu. ginnaaw loolu. baa ngi wax ni. Serigne baa ngi wax ni. président Macky Sall. président Macky Sall. ginnaaw bi mu ko santee gërëm ko. ginnaaw ko santee am réew ni muy doxee. am réew ni muy doxee. te gis na ni. te gis na ni. jox na leen nopp. président kat jox na Serigne bi nopp. ñoom këru diine yi. ñoom yi. xalifa généraux yi mel ni moom. xalifa généraux yi dugg na ci fu ne. teraangam dugg na ci këru diine yi. comme jox na leen nopp nag. comme nag mi ngi leen di déglu. te bopp mbaro olof dafay wax wax ni bopp bu nar am barke. bopp nopp ba cay sax. nopp dafay dégg ndigal dégg comme président dégg na ndigal ci ñoom. te suñ ko conseillé mu def. te suñu ko joxee ay ndigal mu def. gis nañ muy dox ci yoon woowu. mu gis muy dox ci woowu mu bëgg koo dolli. mu donte mu ngi ci. alxuraan dafay wax ni. alxuraan day wax fil amri. wa saawirhum fil amri. alxuraan dafay wax ni. alxuraan di wax wa amruhum suura baynahum. wa amruhum alquran dafay wax alquran day wax fa in tanasaxtum fi shay'in fa rudduuhu ila allahi wa rasulihi aaya bi ma njëkk a wax ne bi ma mooy bi ñu soxlaa réew mi ñoom ñëpp bi ñoom ñu ko ku ci ne da ngaa dagg say garaat kenn ku nekk Euh, nekk citoyen. nekk ab citoyen. simple ci réew mi. dem wuti réew mi. askan wi jox ko président Macky ñëpp loolu ñëpp a ko bokkoon. loolu ñëpp ñoo ko ñu jox ko ko moom. ñu jox ko ko mooy wasaawirhum fil fil amri. biñ ko tegee ci loxoom. biñ ko tegee ci loxoom. moo ko responsabilité léegi. moo jël moom la ci moom la responsabilité bi nekk. mu daal di fal ay ministre am mu fal ay ministre am fal ensemble ak yu mel ni ñoom ñu koy jàppale di def conseil de ministre di def ay conseil di ngir réew mi li tax ñu dénk leen ko muy jàmm muy nit ñi man cee jot ñoo mën li tax ñu dénk leen ko mooy mucc ci ay mooy nit ñi mën cee mucc nit ñi cee mucc conseil de ministre boobu. conseil de ministre yooyu. du ca teew. Serigne mboolem xalifa sénéro yi. mboolem kenn du ca teew. ndax lu tax. ndax lu wa amruhum suura. wa amruhum suura. baynahum. biñ leen dénkee. ñoom ñoo war a daje. ñoom ñoo a di càmbar. di càmbar liñ leen dénk. ba duñ ci fakkastal. ci fakkastal. loolu nag. loolu nag Serigne bi di wax ni. di wax ni. alxuraan di wax ni. li ngeen bokk li su ngeen ci diisoo su ngeen liñ leen dénk ngeen diisoo ci ñaar yooyu su ngeen ci amee réeroo su ngeen ci dellu leen ci yàlla dellu leen yàlla ak yonent bi mooy fa in tanaasaxtum fii shay'in farudduuhu ilallaahi wa rasuuli farudduuhu ilallaahi wa rasuuli ci këru diina yi lañ ko xamee fii ci Sénégal sëriñ bi di wax ni ñii ñu yaakaar lii ñu leen dénk jëlante. muy président. muy ak parti opposant yi. ak parti opposition bi. bu ñu amee jax-jax. ci menn mbir. ci menn ba dellu si ci ñoom. ñoom. xalifa yi. ñoom ngir ngir ngir alxuraan. ngir alxuraan. ak sunna. sëriñ bi nee na. mu ngi bàyyiloo xel boppam. xel boppam. ak mbooleem xalifa généraux yi ni. ci àtte leen ci dëgg. ci àtte bu boobaa. ndax sunu borom. ndax moo waxoon ni. yaa Daawuda يا داود إنا جعلناك في الأرض إنا جعلناك في الأرض خليفة خليفة فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق بالحق kon kooku njëkk nekk di xalifa kon kooku moo njëkk nekk di xalifa ci kaw suuf ci kaw suuf te suñ borom da koo joxoñoon te suñ borom da koo joxoñ ni ko atteel nit ñi ni ko booy atte nit ñi atte leen atte leen ci dëgg ci dëgg gis na nag président. gis na président. bu néew bu ne. jamono bu néew mu woo parti opposition yi mu diisoo ak ñoom. di comme mu ngi ci loolu. comme moom mi ngi ci ginnaaw loolu. ginnaaw Serigne baa ngi wax ni. Serigne baa ministre de l' intérieur. ministre de l' ministre de la de justice. de la justice. de procureur général. procureur yi. gouverneur yi. préfet yi. préfet yi. sous préfet yi. sous préfet yi. commandant brigade yi. commandant brigade yi. na ngeen bàyyi xel. na seen diggante ak jaamu yàlla yi. seen bu ngeen leen bu ngeen xoolee. bu ngeen xoolee. tant bii ñu toog. tant bii ñu toog. a ci gën a néew. yéen gën a néew. yéen ak ñi ngeen àndal. yéen ak ñuy ay gardien. ñuy ay. Euh, homme de sécurité yi yi. waaye yàlla dogal na. mais yàlla dogal na jël sekkereem. jël ci biir nguuram. ci roof ko ci seen biir. roof ko nit teewee. ñaar taxaw ci yéen. yéen ñaar ci yéen taxaw sol tëri bu joxañee bu joxañee topp ci li ngeen wax kon loolu du yéen kon lool du yéen yàlla la yàlla la yéen bàyyi ko xel te ëllëg te yooyu responsabilité yooyu dina toog ak yéen ak yéen wax ko ak yéen al yonent bi day looy wax ni yonent bi day wax ni alxadaasu salaasatu alxadaasu salaasatu asnaani fi nnaar asnaani fi nnaar wa waxadi fi ljanna wa waxadi fi ljanna rajulun rajulun arafa alxaqa arafa alxaq fa asa bihi fa asa bihi fa huwa fi nnaar fa huwa fi nnaar wa rajulun wa rajulun lam yarifu alxaqa lam yarifu alxaq fa asa bihi fa asa bihi fa huwa fi nnaar في النار ورجل عرف الحق فقضى به وهو في الجنة nee na àtte ñett la eh, ñaar ñi sawara lañ jëm ñaar ñi àttekat yi safara lañ jëm ki àjjana la jëm kenn ki àjjana la sawara la jëm ci xam dëgg. waaye nag ki xam dëgg. atte ci digg ba. atte koo jëm àjjana. koo koo jëm àjjana. te nee nañ buy dekki. te dañuy njoñ ay loxo. dañuy njoñ ay loxo. ñu ne lu tax. ñu ndax xam na dëgg. ndax xam na dëgg. atte na dëgg. atte lu tax ñu joñ ko. kon ñu ni dafa yéex a jox. ñu ni dafa yéex a jox. borom dëgg ji dëggam. dëgg nga mu yéex koo jox borom donte jox na ko ko. sunu borom. sunu ëllëg dina wax ni. ëllëg dina wax li ma nil mulk. li ma yow mun lillaahi. yow al yow ma. ñëpp ni cell ñëpp kenn sunu borom gi mooy jóg ni mooy jóg alwaahidul xaxaar ni lillahi alwaahidil xaxaar ne limanil mulku lillaahi lillaahi alwaahidi alwaahidi alxaqaar ba muy ñetti yoon ba muy ñetti yoon ñëpp ni cell ñëpp dañ naan cell mu ni kon alyawma mu ni kon nag alyawma tuju saw na tuju saw na kullu nafsin kullu nafsin bima kasabat rahin rahin rahin laa sulma alyawma laa sulma alyawma inna allaha inna allaha sarixul isaab sarixul xisaab sarixul xisaab bi mu waxee loolu ne bi mu yàlla waxee loolu ni tey kan mooy buur ni waaw tey kan moo fi buur ñëpp ni cell ñëpp ni cell ni kon tey nag mu bisub atte leeral liñ doon jëf leeral li jàpp li doon amul tooñante te kat di amul tooñante amul jaayante doole amul jaayante bi doole ndax yàlla ku yoonal ab atte ndax yàlla moom yoonam am arjana loolu. nu ginnaaw loolu. ginnaaw loolu. sëriñ baa ngi wax ndaw yi. sëriñ baa ngi ak borom kër ak borom kër yi. di internet. lii di internet. ak Facebook. ak Facebook. li ci nekk. li ci nekk. ci ay ngëneel. ci ay ngëneel. bari na loolu. bari na waaye li ci nekk ci ay safaan. ci ay safaan. lu mën a lor doomu aadama. mën a lor doomu aadama. man law ci keneen. man law àgg ci keneen. bari na loolu. ñu di ko wax. sëriñ bi nee na loolu wax. léegi ñu fan di wax. bu leen yéeg tubaab yi. bu leen yéeg tubaab yi. bu leen jaray seen temps. bu leen ci jeexal seen wax. ba yàq seen dund. ba yàq seen dund. suñu borom moo waxoon. suñu borom moo waxoon. wa allama. wa allama. aadama asmaa. aadama asmaa. kullaha. kullaha. lu am tur rek. lu am aw tur rek. xamal naa ko doomu aadama. xamal naa ko doomu aadama. kon loolu dogal suñu borom. kon loolu yi yi yi xam-xam dogal suñu borom. bu waxoon. bu waxoon. dañu ne. dañu ne. ayatina. ayatina. min aafar. min aafar. Wow. yëgul fenn. ci benn prison. ci benn prison. doom ju sant sekk ne. doom ju sant sekk ne. ca maam ya. ca maam ya. ca baay ya. ca baay ya. ba ci ñoom ñii. ba ci ñoom ñii. ba ci doomam. doomam.